Jungle. salaamaaleykum Kiné Diop Touba maa fi nekkal waa Touba ndax ñu bari dañ ko yëgutoon dañoo ñëwoon fii dégg dañuy bind rek ci ceeb bi ma ak sama mbokk mi ñëw fi sëñ bi ne ma daa am ñu ñu fiy xaar moo tax ma taxaw doon ko fi xaar waatu Touba Njaarim gisuñ seen bopp ci dara du courant du ndox du li ñuy séddale te fu ñu jëm woo leen lu ñuy def woo leen métti nañu lool nag ndax ci personnes yi lañ bokk lu ñuy def woo kon luñ ma lu génn rek war nañ caa mën a am gisuñ suñ bopp ci dara maa ngi jéggalu nag waatu Touba Njaarim ñëpp maa leen. loolu moom sëñ bi doy na waar heure bu dara jotee dañuy indi seen oto. yóbbu leen fenn fan coono ba nañ ñu daj leel dañ lay yóbbu ci mitin sax mm-hmm. wala ñu yóbbu la ci daje yi paas sax duñ la ko jox boo ñëw da nga lijjanti sa paas ñibbisi mm-hmm. dara duñ la ko jox waaw léegi nag dañoo sonn ci loolu corona bi dañoo tëj nit ñi ah, ñetti weer yàlla kenn demul kenn dikkut kenn mënta jaayi mm-hmm. te ay jigéen lañ dañoo yoroon njaboot dimbale wuñu ci leen kon lii nga xam ne moom lañ waroon a jox nit ñi su dikkee war nañ cee gis bopp gisuñ dara nag ñëpp a ci yem nag amul kenn ku fi jaar jàll muy ceerno jaay keneen ak keneen a ci yem maa ngi jéggulu nag salaamaaleykum yéen mbooloo mi maa ngi leen di nuyu di leen sant ci teewaay bi di leen xamal ni man li ñëpp wax rek laay wax ndax Thierno Ndiaye nu lenn lenn lenn ci quartier bi du lenn loo xëy defal nañ ko noo lu mat yetti weeri yàlla dañuy rootaan dañuy rootaan suñu làmp yaa ngi ni comme ni ñu ko waxee boo kenn ñi mu sa yoon yónni sa gone timis wala guddi soo génnee ñu kar la loo yor ñu nangu ko li ko tollanti mi ceeb bi nun juróomi fan yàlla saa bu dem yenn fa ba ngoon démb ba mu démb noo nga fa ba mu génnee lu mu wax jóg leen ñibbi ceeb ba mu leen di jox nekku fi loolu lan wax nu daal di jóg nu daal di jóg ñibbi nag te xam ne du yàlla neen la waaye li mu téye noo ko moom day sunu alal nu di ko topp waaye noo ngi lekk noo ngi naan waaye nag looy mu téye dañ koo moom ndax comme ni ko soxna si waxee bi ñu tëjee ñëpp la ñu tëj kon li ñu joxe ñëpp lañ ko jox wëta sàkk ñu muy jox bàyyi ñu muy am ñu muy bàyyi nun waa Nix ma Jaal gi nag saa bu soxlaa dañuy woo nu di ko mitinal di ko mitinal te la yàlla xam doy na waaw dafa lun leen lun mënta muñ nag waaw bourse yi muy joxe maire ñaa ngi nii amu ci kenn koo xëy jox na la ñaar di ko jox gone yu ndaw yi seen la ka neex ma di ko def waaw nun ñi nga xëy nag li nga xëy ni mooy sunu penc mi nag nun seet nan ba xam ne moom Thierno Ndiaye moom am na côté bu na teg waaw léegi nag nu ànd ak yàlla ak sëñ Cheikh Ridial mi nu fi teg waaw ànd nañoo yàlla ak sëñ Cheikh Ridial mi nu fi tek du nu tiit du nu jaaxle waaye li nu war a jàmbati dañ koy jàmbat li nu war a ñaxtu dañ koy ñaxtu waaw looloo waral lii waaye nag bu mu dend noo ngi lekk noo ngi naan yàlla ak Cheikh Ridial mi nu fi teg du nu bàyyi benn yoon waaye nag li nu moom dañ koy topp dañ koy topp ba xam ni mun nu cee jot nu xëy mun nu cee jot moo wara lii nag jërë ngeen jëf.